pour ànd ak yi di taaju bu tamxarit di bés bu ñu tàmm di màggal comme ak bu nekk ñu tàmm ci di ko feetee ak mbokk yi wante itam di nekk ci wàccaay lu jëm ci cere bi mu nekk ab plat bu ñu tàmm di koy togg di ci yittewoo ab togg bu mucc ayib man damay siim rek comme d'habitude comme dama ñi daan def siim bi nag dina neex ndax li nga xam ne moo ci war dem rek laa ci def légumes yi xam ne moom lañ jël di ko def si cere man moom laay def sama cere ñoo ngi Medina fekk Yacine Fall ak i famem ñu nekk rek ci wàccaayu reer bi fii nag benn ndugu manquéwul ngir rek di préparer ak neexal reeru tey bi comme tamxarit aada la jaboot yëpp tabaarkàlla ñi ngi toppatoo seen kër cere di aada di ci def rek li nga xam ne moo ci war. toggum cere bi nag ñu taamu ci boole ay accompagnant ngir rek yokk cafka bi cere bomb nag nekk ci rek lu ñu tàmm lool. moom cere bomb bi moom xaw a dàqal. at baat lañ koy def. maanaam te maanaam nit ñi dañ ci sonn lool xam naa man moo tax mu xaw maa neex da ñoo xamante ne bu ñuy lekk cere dañuy lekk ba si digg bi sotti si meew mais man su ma lekkee pare cere bi rek laa jël def si meew quoi. Adama it gisa it noonee. ci cere bomb bi. xam naa tey moom naa naa si rey sama bopp. bomb bi moo ma gënal. bu amul ñeex sax man nga tëye si cere yi di mëq noonu. wante nag yooyu les accompagnants yu ñu def ci cere bi mu mel ni rek ñu bëri soobu wuñu ci. waa affaire yi moom lu mu gën a simple daal yaakaar naa gën baax quoi. moo gën ñoo xamante ne dañ ciy def loo xamante ne bokk si mun na indi leneen quoi. moom bu métti bi graisse gi suukar yi tamaate bi yooyu yëpp ñu bëgg ko ci jaxase ak yu kenn xamul yoo xam ne sax dañ koy ci dugal léegi rek yooyu yëpp day indi problème. ñu fàttali ni rek tamxarit Ashura bokk na ci li mandargaal at bu bees bi ci calendrier musulman reere cere nekk ab aada bu ñuy tàmm di def ngir màggal bis bi loolee rekk di dellu ci aada ak cosaan ñu ciy digle ab ànd di ay waxtu yu ñu tàmm di dund comme niñ ko diglee ci recommandation islamique yi